asalaamualeykum mbokk yi ziar naa bu baax a baax di leen indil nuyu suñu président Ousmane Sonko teg ci di leen indil suñu nuyoo candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye

lii ku ko gis xam ne sénégalais yi pare nañu pour dem élection tànn seen mbër ñun dañu pare bu yàgg comme ni ñu ko yàgg a waxee parce que xam nañu ni xam nañu ni Sénégal décidé na changer système bi une bonne fois pour toutes loolu moo waral ngeen di gis ñuy génn saako yi ñu leen di xëccaat ñuy génn saako yi dafa am loo xam ne nag bëggoon naa ko wax askan wi bu ñu booloowee di xeex benn mbir ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci kujje politique yi dañu war a booloo noonu ndax askan wi waru ñoo gën a gore waaye lii dëgg bay dëgg mooy su Macky Sall sañee def yenn yi daa fekk ne day am ñuy jéem a faagaagalante seen biir gis ngeen démb li xew lu mat ñetti élément de l'opposition jéem nañu jël mbir mi teg ko ci kaw dond Ousmane Sonko lenn rek la ñu bañ mooy bu ñu sañoon Ousmane Sonko day dee ci kaso bi waaye nag waaye nag ils vont souffrir pourquoi parce que le président Ousmane Sonko est au-dessus de la mêlée ñoom son candidat va les laminer Bassirou Diomaye Faye morom te dina leen duma kon nañu bàyyi président Ousmane Sonko tranquille li leen metti mooy président Ousmane Sonko bu nekkul président mooy tànn kii doon président loolu la yàlla dogal les soldats de l'information euh, je pense que mën naa leen comprendre parce que man journaliste laa mais dama leen di ñaan rek ngeen euh, organiser wu bu baax parce que yéen a ngi taxaw ci kanamu leader yi te mën na andi gàllankoor tey ci organisation bi il faut s'organiser davantage ñu nekk ci kanamu leader yi bu dee dañuy def interview ñu dem ba à côté rek su ma defee liggéey bi mën a euh, mucc ayib parce que nag il faut ñu am benn une certaine visibilité mais loolu day andi des organisations Euh, docteur Babacar Diop maire de Thiès docteur Babacar Diop ñu ngi lay woo nga daal di ci piste bi. docteur Babacar Diop bu ñu paree ci yow euh, Fadilou Keita Fadilou Keita qui a été récemment libéré se Xurees kaay xurees xurees. baal du dóor après xurees ñëw. du respect baal du Je voudrais, dire que le sort d'un pays est trop important pour dépendre

ku ko neex mu daal di grâce ku ko neex mu daldi di amnistie ku ko neex mu ni ñi mu nañ la dàmp ku ko neex mu ni nañ la delloosi ci ku ko neex mu ni nañ la exilé ku ko neex mu ni na nga ñibbisi loolu du dëkk dëkk ay institution ñoo ko tënk institution yooyu ñoo ëpp doole Macky Sall institution yooyu moo ëpp doole président de la République ndax président de la république dooleem mi ngi ko tiire ci institution yi président de la dooleem mi ngi ko tiire ci peuple bi wolof yi nag nee nañu nit ku nekk war ngaa moytu nga mujj puso bi puso bi loolu mooy lan Macky Sall avant lui Sénégal amoon na Macky Sall avant lui démocratie amoon na fal nañ fi président bu ne mu aye daal fégal comme Macky Sall bi ñu koy jox réew mi dañ ko joxoon un pays intact dans la paix dans la stabilité ngalawaay Macky Sall amul droit mu détruire nos institutions Macky Sall amul droit mu installer le chaos au Sénégal Macky Sall amul le droit mu mu la violence au Sénégal institution yi ñu ko dénkoon démocratie bi ñu ko dénkoon république bi ñu ko dénkoon kuy mbokkam képp ku koy xelal képp ku ko jege war nga ñu jàppale ba suñu démocratie boobu ba suñu institution yooyu ba suñu république boobu mu daal di koy préserver au nom de l'intérêt de notre peuple merci beaucoup. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax euh, donc euh, ñuy woo euh, Khoureychi Thiam mu daal di dégg jël parole yoon daal di jël bi. libéré libéré libéré libéré libéré libéré libéré libéré libéré libéré libéré asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki Sénégal maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur seen sant di rafetlu seen taxawaay yéen ñëpp parti yi yëpp responsable yi fi daje yëpp ñu ngi leen bu baax a baax a baax a baax wax ji nag du gudd waaye ñun ndawu Sénégal tey dafa jot ñu taxaw temm takk suñu dënn wax ak kii nga xamante ne mooy président Macky Sall pour Wokkori nag dafa doy sëkk doyal nañ sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk ci moom jot na nag instant bi mu def li nga xamante ne mooy élection parce que moom kenn tànnalu ko woon pour mu nekk suñu président jot na nag tey mu def élection avant le 2 li nga xamante ne moom lay bàyyi suñu réew mi mu teg ko si yoon respecté lii nga xamante ne mooy charte réew mi waaye ginnaaw loolu ñu ngi woo tamit waa conseil constitutionnel ñu jël seen responsabilité parce que tey jot na nag ñoom ñi nga xamante ne ñoom la ñuy wax les sages ñu def un acte sage pour la population du Sénégal parce que jot na Sénégal jël leen seen responsabilité parce que l'avenir de ce pays ci suñu loxo la nekk donc dañu ci àndandoo ñu doon benn say ñu exiger li nga xamante ne moom la ñu bëgg muy élection pour le deux bii avant mu jot le président Macky Sall mu def ko pour ñun ñëpp pour ñu tànn un président de la République du Sénégal. Ladies and gentlemen, this message is for the Senegalese, but also is for the United Nations also all the way around world. We want the President Macky to make sure that we have election before the two, before the second of this month. We gotta make sure that he's gonna play our elections. That's the number one thing that we accept when we tell him to do it, like it or not. The second of all is we want the freedom of all of these kids that being jailed. They're in the jail. We want freedom for all of them. We want freedom for all of these young kids that are in jail. This is not right. President Macky we are letting you know if you don't make sure that the constitution is being respected, we, the youth of Senegal, we're going impose you the respect and we're going have election like it or we want freedom for President Ousmane Sonko, freedom for Jamal, freedom for Amidja, freedom for all the Senegalese. And we want election like it or not. Thank you very solo ñu koy jaajëfal ah, Fadilou Keita soo mënee jege sa rek ñu jox la kàddu bi soo paree soo demee ak yem laaj